Thank <laughs> you. toujours dans votre acte du jour de ce 25 juillet 2024 ginnaaw bi nga xamante mercato Madame transhumance politique bi qui na pas nag nga xamante ni Omar Sarr di maire Dagana bokkoon ci parti démocratique sénégalaise bi PDS Dano, mu daal di transhumé dem fekk qui ki nga xamante ni alliance pour la république di APR ginnaaw loolu alliance pour la république daanu na mi nga xamante Omar Sarr di habitué au fait moom daal ñu koy accusé jamono yi daal dafa bëgg la rejoindre li nga xamante ni coalition Diomaye président mais

moy demande bi nga xamanteni un ancien membre de coalition Benno Bokk Yaakaar Binga bi nga autrefois militant parti démocratique sénégalais la di PDS actuellement muy maire Dagana ay responsable Pastef dal ñi ngi exprimer dans li nga xamanteni moy sen frustration jëmale ko dal ci attitude bi nga xamanteni qui dit di maire Dagana di Omar Sarr bëgg n'okodef def ginnaw di Benno Omar Sarti bopom dafa annoncé won que dafa dal di retiré wu ko dal ci scène publique bi ma scène politique bi dafa da annoncé retraite mais ginnaw loolu quelques weer yo xamanteni gis nañu momi di ancien ministre bi décidé dal di mobiliser les plus troupes ci weekend bi ñu génn ginnaw loolu dal ay action la yudul dara yo xamanteni du bett ben membre parti bi nga xamanteni moy pasteur suñu sukkandikoo ci Assane Diop bi nga xamanteni moy responsable pastif mom dal dafa qualifié que maire Dagana bi dal ben politicien bu imprécis le li ko waral nak na lépp loo xamante ni mi ngi ko bëgg def du dara lu dal di jéxal li nga xamante moy population bi ñu décidé dal di tourner le dos ki nga xamante dal mom moy Omar Sarr ginnaw mu mi di Assane Diop di responsable parti Pastef mom la xamalé ci rondu RFM ginnaw lool dal muy benn avis bo xamante daf ko partagé ak ki nga xamante moy El Bachir Diagne li camarade de parti affirmé na daal que ki di Omar Sarr di maire Dagana depuis 1996 lepp lu muy tenté dal moy préparer benn éventuelle transhumance bonopidal noppi à di multiplier ay audience jégleel ko ay responsable yo xamanteni yu Pastef bu Dagana la ginnaw bi ñu profiter pour d'aller di prévenir bép militant wala sympathisant mu baña a ci piège bi nga xamanteni moy tentative de ralliement bi nga xamanteni moy cause bi nga xamanteni Omar Sarr mi ngi koy def ñom lepp dal lo xamanteni bëgg nañ ko wax ki di Omar Sarr mooy soxlawuñu ko te ragaluñu ben yoon jàkkaarloo ki nga xamanteni moy mom ginnaw bi nga xamanteni dal lepp lu ñu xam moy nit la bo xamanteni amul ben yoon bo xamanteni dal dafa bëgg nit ko xamante ni mu tàkk depuis nag presque lu toll ci ñaar fukki at lii di population d'Agara, amul benn yoon boo xamante ni am nañu benn terme d' investissement jëmale ko ci dellu soit tey pour continuer politique bi nga xamante ni du dara lu dul manipulation ak tromperie boo xamante ni tey suñ ci sukkandiku dañ ko war a arrêté ki ko xam ne di Assane Diop di responsable parti Pastef les patriotes foofu ca Dagana mi ngi xamal daal ñii di militant Pastef yi ñu nekk ci bannière bi nga xamante ni ki ko dirigé du kenn ku dul ki nga xamante ni premier ministre actuel ñoom daal dañu tànti attirer attention pression jeunes yi jëmale ko daal ci bañ a sedd benn ci manipulation bi nga xamante Omar sall mi ngi koy def ba noppi daal di interpellé lii di coalition Jomay président bi nga xamante mo nek nekk jamono ji ci bop réewu Sénégal que ñoom amul ben yoon bu ñu soutenir ay jeunes u Dagana bi nga xamante képp kuy membre JPS muy jeune patriote du Sénégal bokk ci section Dagana amul benn yoon boo xamante ne dañuy contrer ay manœuvres jëmale ko daal ci kii di maire bi di Omar Sarr en tout cas li nga xamante ni daal mooy transhumance bi nga xamante ni njort nañu moom la bëgg a def jàpp nañ daal dafa voué à l'échec ndaxte jeune patriotes yi daal dañu taxaw ci kanamam nee nañu bu ko kenn wuyu ndaxte duñu d'accord 1996 ba tey lu toll ci ñaar fukki at mu nekk maire Dagana amul benn réalisation benn investissement bu fa kon nañu moytu manipulation bi nga xamante ni Omar Sarr bëgg na ko def pour rallier li nga xamante ni mooy coalition Diomaye président ba noppi daal di dànkaafu bu baax a baax qui dit président de la République Bassirou Jamaï <laughs>